di leen gërëm di leen sant tey nag dañ fi daje ak conseil yi euh, dañ njëkk a joxe ay euh, information ay xibaar pour que ñëpp yëgandoor mooy bi ci njëkk mooy euh, fi fi may taxaw ak yéen nii déjà tardé naa dama war a dem jóge Ndofane dem ay AIBD jëri ay partenaires yoo xam ne ay étudiants lañ ay xale dinañ fi def une semaine juróom-benn xale Euh, ñoom ñoo électrifié woon dëkk bu tudd Medina au solaire ren dañuy ñëw nag defaraat hein, defar fa ay prise yokk ba dem natt li nga xam ne moom am ci ñaari dëkk yuñ ak Maalo Maalo nga xam ci commune lañ donc dañu war a pour demaat suñ demaatee ñëwaat bëgg def ñaari dëkk la ñu yàlla booleeg vraiment ñu ci parce que état mënta def lépp ñun aussi suñuy xam-xam suñuy mën-mën dañ ko en dehors moyen état bi dañ ko pour dimbalé ñi nga xamné ñom ñoy population bi euh, lolu euh, benn la woon information bi ma bëgg en joxe xibaar bi GIZ Allemagne dañoo jël ñaar fukki ak pour dofan ñu fi débat d'orientation le 26 octobre ñu ñëwaat fi tay tay nak biñu ñëwé man bi ma ñom la réunion ak population bi jeunes yi familles... parce que fi 40 GIE yo ñom ñoy nettoyer quartier yi ñooñu la ñu woo wan légui ne GIZ daf leen di jàppale nañ def assemblée générale ñu ko jàppale 6 novembre tan bureau ñu am keuyit bu ko défé euh, ñu jàppale leen pour ñu mun di nettoyer dëkk bi liñ ciy teg mooy euh, dinañ tabax itam benn kuréel benn euh, usine bo xamné ñom buñ bu ñu ñu nettoyer ramasser ordures dañ ko yobbu ci usine usine bi défar ko xam ngeen né salté mom ñëpp a ko bokk ci réew mi dëkk boo dem mu ngi am problème yooyu kon ñun Ndofane bu ñu amee chance boobu dañ ciy sant yàlla vraiment ñu ñëw euh, investissement yooyu ñun amuñ moyen donc partenaire bi aussi nee na day financer ay projet poulailler ay projet yu mel ni permis de conduire par exemple ñi ko bëgg a def ñu ngi ci commencé nañ ko donc ñoom daal dañ ñëw pour jàppale commune Ndofane pour l' emploi d' ailleurs ci nettoiement bi nee nañ dinañ njëkk a jël 100 personnes téeméeri nit ñu liggéey buñ paree nag dinañ aussi jël 20 yoo xam ne ñoom ñooy gérer usine bi ak yooyu pour que liguey bi mën am mën dem lolu je crois que lu ama am solo la. ñom kay nenañ affaire bi mom tàmbali na le processus bi nenañ fin novembre bu fekke ñun paré nañ sax mën na mën nañ commencer indi bagage ñoy joxe lépp brouette bale tout ñom ñoo joxe. donc vraiment ñun lañuy xaar ñu def assemblée générale def euh, bureau bi am kayit donc lolu aussi lu am solo la benen xibaar bu am solo moy dañ fi defoon délibération par ay logement ñu fi waroon tabax logement yi.

ndax jaar na yoon ndax li ñu waxoon ne dinañ ko am ci marché bi am nañ ko ndax li ñu waxoon ne dinañ ko jox hôpital ndax jox nañ leen ko yu demee noonu loolu nag boo ko defee tey balaa le 31 octobre dina tax pakasen bii ñëw déwén nga jot sa te ñun projet bi ñu jox kilifa yëpp signé ko mooy Ndofane war na am trois cent 309 millions pour mën a def ay projet yu bari def ay pava ci marché beeg li ko wër defal école 6 ak yeneen ak yeneen kon loolu aussi lu def nañ ko ba ñu wate ko. li ci topp mooy euh, wa déli wax naa ko def nañ délibération terrain bi def nañ aussi li nga xam mom moy mooy affaire jardin public ndo fan dafa bëri ay place yo xam yi ay réserve la yi am ko mom mais réserve yi daf ci am benn bo xam presque motoon na 3000 euh, mètres carrés reuy lol benn xaj bi benn poste gendarmerie bu ndaw nekkoon fa ñun ñu ñëw toj mur bi yaatal ko xaaj ko en deux parties benn bi ñu defal ko gendarmerie muy espace bu mag a mag a mag clôturel leen ko fermel leen ko mairie bi moo financé loolu. ñu jóge ci loolu mu des benn espace beneen moitié bi mu ay saleté nekk fa ñax nekk fa ñu décider def ko jardin public. jardin boobu am na cafétéria am na euh, terrain de pétanque am na ay banc public foo xam ne nit ñi mën nañ fa toog lire jàng waxtaan def fa lu baax looloo tax ñun ñu def ko fa jardin boobu nag pare na. tey ñu am benn jigéen bu dëkk ci dëkk bi ñu koy wax Seynabou Niang di woykati ngoyaan bu mag yóbbu suñu turu dëkk fu ne baax ñun ñu xamoon ko personnellement xam nga nag réew il faut ñuy joxe ay yaay maanaam ñi nga xam ne dafa am ci lu ñu nekk gëm ko buñ ci defee lu baax buñ amee yu mel noonu ñu fàttali ko parce que buñ ko deful mën nañ toog fii ba ay génération fukki at koo wax Seynabou Niang mu ne la xaw ma kan mooy Seynabou Niang ak lim ñu liggéeyal Je propose ma conseil bi sur la route nationale a un jardin public C'est euh, elle est nationale elle était nationale Je ñu kon jardin Je moom moom moom la kër Seynabou vraiment conseil puis voté à l'unanimité Nous suis ñu ko ñu Je félicité njobootam vraiment di leen wax suis ne fi mais am na Je suis ci Thank you